mbër gàlle seetaan nañ su ma juumul tey rëg-rëg bañ jële sa image dugal ko Canal Plus mu nekk loo xam te ni ñëpp dañ koy rêvé. ñuy commenté ci yow loolu nan la def ci. waaw mais kontaan rek ndax mooy wax ne kii fii côté bi laa ko namee côté bi lay awee nangam nangam yëpp ndogal suñu borom la man ku moo waxoon dinaa feeñ canal bi ma boobu maa ngi nekk si kalo asu ku ma waxoon sax man dinaa feeñ télé dama naan la déedéet ba ma doonee xale boo xoolee am na image yi euh, war bantamba bi ñu teg maa ngi doon xale bu ndaw ñu seet si fii Papa maa ne woon ci ginnaaw gaal gi noonu taxaw ba maa ngi doon booy quoi di sanguy géej ak yooyu di jàng waaw. Mhm. Ah. loolu motivation la. bien tey ji boo xoolee canal bu ma juumalee Yékini rek kaa fa mosoon a feeñ ah. mhm. waaw mais Yékini bi mu fa feeñee ñoom ñoom li ñu wax ak moom mhm. maanaam ci cadre you know ci beneen discipline na mais man sama bos maanaam dañoo toog commentaire toog ku tàng moom waaw you know voilà kon loolu yëpp moom moo ñu ko kàttanal ban man ka xam nga loolu si di dem ay Dubaay fa nekk ay trois mois xam nga loolu gis nga Dubaay gis na vie bi nu mu seere néeg bi ma doon tëdd quatre vingt fay chaque jour. hôtel bi ma ne woon non man maa koy fay sama xaalis sama xaalis boo am li ma fay rek man na boo xoolee maanaam ci hôtel bi rek bokkul ak lekk ak naan mhm. ah, fay naa lu tolloog ay. quinze millions bu tee kay manqué. yeah waay. mais bu ne laay laay li ngay récolte après boobu. man c'est fi ma nekkoon la ma jaa woon cité laa nekkoon. fi gën a neex si Dubaï. patron yi milliardaires yi. salle bi ñu doon man foofu laa doon entraîné. waxaa xanaa déggu la. Oh. MMA uh-huh. dafa doon loo xam ne tey jii man salle bi ma doon entraîné ay milliardaires ñoo fay entraîné nañ ma baal si kàddu gi mm. ku tumurànke amul foofu. dañu waxtaan rek waaw. xam nga ma la mm-hmm. la demee fi ma nekkoon ba seex mii fekk si ma fa sama beneen moniteur bi fekk si ma fa. Cheikh Dubaay mi waaw mm-hmm. ak sama beneen moniteur loolu ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp samay loxo nañ nekkoon. Mm-hmm. dégg nga ah. day gën a metti da pare ñoom seeni i biir yëpp maa ko jëndoon may dem saal li ma fa lekk rek moom xam li mu fay lekk rek maa ngi moom avant muy dem moom vingt vingt vingt huit yi mu fa nekkoon. lu mu dee dee dee maa moom rek lekk nañ fa 5 millions. ay seex 5 millions nga lekk. duy caaxaan. bon laay fi ma nekkoon bi may watu. watu watu rek watu. ñaata la. waa ah, waaw fii de boo amee 2000 di nga watu boo amee 5000 di nga watu. fee nag laa fay. si bopp. yow rek rek <laughs> billaay wallaay moom laa lay expliqué ndax fi ma nekkoon la. fi ma nekkoon dañoo riis. fi ma nekkoon dañoo. maanaam dañoo bëri dañoo bëri xaalis ba xam ne tey ji maanaam seen vie foofu lépp a seer. si xaalis sax day mel ne. xanaa dégguma laa la min boo toogee di wattu xoolal lépp dañ la koy defal. naan loo bëgg a téye yaay xool loo choisir. foofu kon kaas tee oh, dëgg yàlla na xaw ma kaas tee la fa mais daal watoo naa fa quatre vint quinze mille moom. mais quatre vingt mais du dara ndax. loolu du dara dama calculé euh, boo xoolee six cent dirham. waaw ay ah quatre cent mille tuuti la koy manqué sax ay deux mille mille francs mille cinq cent boobu sax. bi ma koy fay loolu du dara. loolu du dara ah. ndax nit ki foo dem yow yaay sagal sa bopp nit ki fooy dem mm-hmm. am na yoo xam ne doo war dootu la warati. Mm-hmm. yaa ma dégg mm-hmm. ñun bu ñuy dem voyage ay millions la ñuy yóbbu. macha allah ñun du ñu dem fenn di tumuranke ndegam xaalis moo fay dox. demee contrat yi ni mu demee ndax gis nañ yow macha allah yaa ngi doon kii foofu noonu mais sa dernier combat bi parce que ñu bari ba léegi dañ naan dañ laa daan mhm. ñu ne euh, daanu ñu la mhm. loolu sax est que nekkul tamit moo la gën a xam yow da ragal defet de ankay da ngaa fi mës ndax yow yow yow man si ah. la daanu fii mbër bu fi mës la daanu amul si àdduna amagul waaw nga bàyyi bëre ba daanoo mhm. amul fii Sénégal mais am na fee si eh, eh, MMA bi. mais expliqué ñu MMA bi. xam nga lu ma la expliqué. Ah. léegi MMA ah, boo xoolee suñu contrat ñu ak ñoom deux ans vingt sept mois la. deux ans vingt sept mois. trois mois yi ñaata kay manqué ay cinq mois moo ko manqué boo xam ne sens ndax mois bu douze la. Ah. nest boo xoolee cinq combats la. cinq combats la neexee si sept mois yi mën nga kaa bëree ñoom si s'en fout. ok. est-ce que mën nga ma bu la neexee. mën ngaa bëre comme maanaam at at mi at mi si biir at mi ngay bëre benn euh, si at mi mën ngay soxlaa yow yaay xool nooy mm, yow yaay xool yaay sentir yaay voilà yow yaay lu la neex yaa koy def man ma ma asona ñett mhm. waaw yaa dégg mhm. léegi nag ñeenteelam bi mhm. euh, non non ñaar laa asone ak ñett ñett laa asone ñett yi laa asone xaaral rek xaaral non waxuma màgget bi ñett yi ma avancé ci woon championship bokkul ak lii France bi euh, léegi bi ñett yi ma enchaînement boo xoolee enchaînement si un mois si un an sax la la toll si un la ñett yooyu. léegi nag dese na ma fa ñaar damay toog seen baaj. ar moo bëggee fayit damay fayit. Ah, heure man maa kase jéena looloo fa am. tax nga bàyyi kii. non pourtant nag pourtant nag non. dafa doon loo xam ne bokkul ak. làmb. Mawlid avec frappe bu ëpp xaalis. Oh. Hmm? yow MMA ngay wax de. Uh-huh. MMA ay milliards la. ay milliards milliards ngay fay ko bokkul ak yële bokkul ak léegi man sama kase bi ma am li ma fayoo ko ëpp téeméeri junni yoon. kase bi sama mag guy duubul na ko. duubul yow dama bàyyi ah làmb yow MMA. vraiment <laughs> day fay de. day fay day bu bëri. day fay de moo tax sénégalais ñu bari gis nañ léegi ñu ngi def ci MMA ndax euh, moo gett. ñu koy waaw mais nañ dem par lii ka rek. Euh, nan dem entraîner ka. ndax doon na sport boo xam ne dafa xaw a dangereux tuuti. you know ya boo kër jóg bi. kër jóg bi da siy bokk. gis nga Dubaay ñun bu ñu demee. nii entre na ñoom docteur bi ñuy suivre am lekk gi ñuy lekk am lépp loo xam ne tey jii ñii dañuy nekk si ñun. loo mën entraînement booy daw da teg fi benn affaire dañuy xool yow sa cœur bi lan la mën a antal. est boo ko mënee antal nag ñu commencé laa teg entraînement yi gis nga sama doon entraînement du ma doon def nu loolu nag fekk na sama moniteur beeg euh, médecin bi ñëw na ba wax ko lépp moo tax mu teg ma yooyu ma loolu ma teg. kon ñu ci am problème <laughs> loolu la quoi loolu la ñu may teg yu ma teg man antal naa ko ndax xam nañ ne man xale laa mm. te gëm naa lu may def bëgg naa ko moo gën contacté wu la. moo gën wax dëgg yàlla contacté wu ma ne. Ah, ay lan la ñuy joué MMA. Ah, léegi ah, tout cas daal li may wax sama mbokki mbër yi dama leen ngeen jàngi ka kala say dugg bu la si puukara duggal wala bu la si alil jugal. il faut nga jàng ko man ka maîtriser ka mais dama ne na. Mhm. man ñëw ma si MMA pour ay nekk ay li ñaan wala nag man instant bi adduna ñëpp a ma xam. macha kon MMA man damay ñëw pour reyante sama bopp ba am belti indi ko fii comme ni ma indee lii ak yële ah, ah, ah. ma indi ko si kattanu suñu borom loolu laa ñaan yàlla te si kattanu suñu borom ñu ngi si ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi suñu yoon di ñaan yàlla suñu borom lafal mu cat ak musiba balaa. sa bii kan moo la kii kan moo la ñamaloon. xanaa bi nga mujjee kii. bi ma mujjee bëri nii ah, boo xoolee connexion bi dafa lii léegi waa ji dugal ko moom nag bu mu may dóor bàyyi naa sama garde bu wàcc. mais boobu man xam nga xamoon no sonn ma woon du question sonn du question sonn fi ma dóor sama ñaari bëñ ma palama moo palama moo deñ te boo xoolee coup bi dal yenn dali lii moo dal lii damaa brosse si mentoire damaa brosse noonu la demee mais du leneen ku la si wax leneen. lii la dem ngeen dajawaat waaw si kàttanu suñu borom. kon de am problème. waaw mais non du problème rek sport la oh. sport. ñoom boo xoolee ñoom maanaam ñu am ndam ak ñu ñàkk am ndam moom la yemalee yemale. sport ñoo ñooy sport. ah ñoom ñooy waaw. Ah, ah. beneen mooy lii fu may jeexalee. muy association des. xam ne moom bi xamante ne sama copain moo ko jiite muy association des des lan des des des lutteurs en activité beneen bi des jeunes lutteurs am na beneen sax bu juddu waaw ah, mais association yooyu nan ko gisee parce que dégg liir naa ñu ne que yow da ngay soutenir mooy les jeunes lutteurs. fan. guy gi. foog a ah ok rëg rëg yow. damaa juum xam guy gi sama waay la moo tax. Hmm. nan nga gisee kii bi coow loolu association yi. coow li ah man de ni nga ko gisee noonu laa ko gisee. mais en tant que porteur de voix. waaw mais ak ak nu mu mënti demee gis nga moom laay wax rek. Euh, giri mënta oo ñëpp nañu waxante dëgg. Mhm, dëgg la. oo mbër yëpp. Mhm. mënta lijjanti mbër yëpp manta ne. Mhm. mais ngalawaay nag gëstu xale yi. xam nga lu expliqué bu ñu wan ne VIP rek a fi nekk ñoom rek lay contact non non yaa ngi jaajëfal da nga war a contact ndax mbër la ndax moom mooy njiit mi xam nga lu expliqué kon daal nañ gën a waxtaan. làmb gën a jëm kanam quoi man loolu laa gën a gis ñu toog waxtaan man man moom maa ngi nii. bokkoo man moom maa ngi nii lu doxal làmb si laay dox. mais tax bokkoo ci dama ne la. non non dégloo li ma la déglu la man liy doxal làmb si lay laaj ba xam bokk nga ci wala bokkoo. non man boo dëgg yàlla nag ah, bokk ma si. ah bokk ma si. yaa bëgg kuy doxal làmb rek moom laay moom laay moom laay àndal. man du dox koo xam ne maanaam day suuxal làmb wala nangam nangam kuy doxaloo làmb rek nga xanaa déggoo doxal làmb xol ku ci doxal làmb rek maa ngi sa ginnaaw ndax ñun làmb nañu am moom nañu yaakaar mm-hmm. waaw kon kuy ñëw jàppale làmb suñu bopp nañ ko jàppaleel. mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan